feebar bii di feebaru ni nekk feebar bi nga xam ne day dell góor bëri na ci góor ñi xam ne daf leen dal maanaam dafay jàpp seen Ablaye Ndiaye muy dëng Ablaye Ndiaye bu dëng nag mooy Ablaye Ndiaye bu jàdd gauche wala mu jàdd droite wala mu sëgg maanaam daal day sëgg ba bu bu sëyee sax day gaañ ko jigéen wala boog du mën a jóg normal maanaam day gaaw a peer day gaaw a dégonfler te du dëgër ndax tuyau bu dëng du am pression te ndoxu seyukaay bi itam du nekk qualité bu baax infection da koy waral ak góor guy fowe boppam di jël sa awra di ko bës ba sa ndoxu seyukaay génn di fowe sa bopp loolu moo tudd mballu lu dangereux la ak borom caleçon yu xat yi te seere ni ñàpp ci seen yaram loolu baaxul rawatina nag ñi daan def sport de combat ba ñu jël ci ko kon traitement bi koy faat mu ngi nii ay pommade la comme ni ngeen ko gisee univers bio bu Serigne Lamine Bara Fall nekk Dakar Géejawaay arrêt du Balès kër baara Bara boo ci ñëwee di ngeen ci jot feex rek la dana yokk doole gi yokk ngóore bi yokk kattan gi maanaam daal lépp lu jëm ci télé ak awra bu dëgër bi nga xamante ni daal du jàdd fenn macha allah dana jub kocc nga gis sa bopp ki nga ko sekkal di ci gis boppam macha allah kon ma conseillé la xefee la am pommade bi buñ la ko jëfandikoo boo ko jëfandikoo jëfandikoo lépp dina am tawféex 77 169 45 45 77 169 45 45 contacté ñu ci whatsapp wala nga woo ñu directement ñu expliqué la nan ak naka boo ko jëfandikoo lépp baax géejawaay arrêt Doubalès kër Serigne Lamine Bara Fall macha allah.